صلى الله عليه وسلم نينا كو خامني نك داغا فونك جولي جولي جوروم باي كو خل غناو باغا فونك لاب نينا يالا دانا لا سيدي جورومي ترانغا بو نجهك بي كو فونك جولي جوروم بس بو دوغي باميل يالا دانا لا موسل تي مبوغلوم باميل كي جولي فونك جولي جوروم صلى الله عليه وسلم نينا يالا دانا كو مي خل مو دال même bu amul xaalis itam amul kër amul oto yàlla dana ko may tuma nii na quiétude bu ñetteel bi mooy bu yowmal qiyaama ba yàlla di seddale téere yi ku ci nekk li nga jëfoon ci àdduna yàlla nee na ki nangoo téereem ci loxo ndeyjooram nee na dañ koy régler régler bu yob bu jàppandi du am benn jafe-jafe am na lu dàq loolu moo di du duxulul jannata bi xayri xisaab bu yowmal qiyaama boo ñëwee booy dugg àjjana say dossier kenn du ko gëstu sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg a jéggi siraat jéggin bu gaaw a gaaw dégg nga doo am dara lu lay téye doo am dara lu lay jaaxal nee na na nga fonk julli juróom